sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barik ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati sunu kàddu ci turu cheikh Mouhamadul Moustapha moom cheikh Abdoulaye Lahad mi fi teewal cheikh Mouhamadul Muntaqa waaye teewal fii sëriñ Sidi moom cheikh Abdoulaye Lahad teewlu sëriñ Hamsatu ak njabootu sëriñ bi yëpp di yëkkati kàddu yu seede rek ak mbekte moo xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha am na ko ci jataay bu am solo bii di jataay bu lislaam ndax ku ne xam na ne julli mooy ñaareelu ponk ci lislaam ba'da shahadati an laa ilaha illallah mooy taxawal julli moo ci topp jàkka nag fa la ñuy jullee jàkka doon lu am solo ci lislaam ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mu ñëwee madinatul munawwara jàkka ja la njëkk a taxawal mm-hmm. soññee fa julli di fa jiite julli sunu borom wax ne itam inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquta te julli ci jàkka lañ koy defe sallallahu alayhi wa wax ne jullee ci jàkka wala jullee ci mbooloo ëppee na daraja julli yow kenn fukki daraja ak juróom-ñaar salaatul jamaati afdalu min salaatil faddi bi sab'in wa ishrina daraja cheikhuna alxadim radiallahu anhu nag fonkoon juli waaye fonkoon jàkka fu mu mas a sanc rek jàkka ja la defar hmm. ndax moom defara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba donn ko daaru salaam hmm. jàkka ja la njëkk a defar hmm. waaye daarul alimul xabiir jàkka ja ca barab boobee fa la ko sallallahu alayhi wa sallam feeñoo woon ba jàkk ba fa jógee daarul mannaan moom itam jàkka la fa defaroon waaye ba mu fa jógee ba dem ca tukki ba ku ne xam na bantam yooyee nekkoon ca Gabon nga xam ne fan yi rek gis ne barab ba mu nekkoon waa gouvernement gabonais jox na ko Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ngir mu doon kër Serigne Touba te ku ne xam na ne foofa jàkkaa fay jiitu fekk jàkka amoon na fa kon loolu itam lu yéeme la bu ñu fàttaliku wala ñu toll ci téeméeri at gannaaw bu ko tedd ki làqoo fañ ko yóbbu ngir tasaare liggéeyam bi ngir mu bañ a taxaw foofa mel dafa gën a jollee moom itam mm-hmm. ba fa doon def muy jaamu yàlla subhaanahu wa dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jox ko barab boobee mu moom ko kon Cheikh Mouhamadul Mountakha de barab bi dafa am ay mandarga yu bari waaye bi mu dellu si Mbacke Bari ku ne xam na moom it jàkka ja waaye bi mu dellu see njaareem ku ne gis na ne jumaay njaareem boobaak léegi téeméeri at yi topp na waaye bokk na ci yi gën a taaru ci àdduna ba fi mu nekk plan bu gën a kon sëriñ beeg jàkka dañoo yàgg te booba mo tegarool xeer wi boppam gis nañ bu yàggul lañ gi sax photo yi nataal yi nga xam ne mooy wane bi mi xeer woowee waaye nag jumaay Tuubaa ju mag ji sëriñ bi ci boppam moo ko digle woon waxoon wax jurëy jëm ca wax Cheikh Moustapha Al Karim tàmbale ko Cheikh Modou Fadil àggale ko waaye nag borom barab bii wala kenn nu jabate ñun ñëpp tax ñu teew fi tey kon a gis na yokk bi mu ci def ak jàngale bu rëy ba mu ca jàngale woon ndax booba ba mu waxee la koy defar ab diir bu bu bu gàtt wax ne li ma doon laaj mat na te loolu ba baaxee su ko woon a dégg jumaa yi boobaak léegi itam jumaa yi waxtu wu ne gis nañu ñu ngi koy taxawal waaye sëriñ bi moo ko ñaanoon wa jaxal bu yuutii kullaha masajida mm-hmm. yaa naa fi yoon man laa yakun sajida Tuubaa gii rek wax nañ ne li ñu fiy julli ajuma ci jumaa ay nangami téeméer la mm-hmm. jàkka yi moom ay junni la loolu kon lam bëggoon sunu borom da koo defal kon bu sëriñ Xamsatu ak Cheikh sëriñ Cheikh Cheikhul Xadim wootee bis bii Cheikh Mouhamadul Muntaxa ne bisub sëriñ bi la mm-hmm. bisub lislaam la bisub jullit yëpp la xolam sedd na ci guy kon mi ngi ñaan mu bokk ci liggéey yooyu nga xam ne rek jaxal bu yooti kullaha masajida waaye nag mu bokk ci li sallallahu alayhi wa sallam ne ida maata bnu aadaman qataa qataa amaluhu illa min salaas ñett yooyee yëpp yàlla dugg ci jataay bi ñu fi teew kon ci kàddu Cheikh Mouhamadul Moustapha mii nga xam ne moo fi teewal seriñ bi sëriñ bi waxoon ne nañ ñëw ci sëriñ Xamsatu buñ ko fi fekkoon moom it mooy doon kilifa gi waaye nu wettali ko ànd ak moom jataay bi te xam ne sunu jataay ñëpp nu fekk fi tam njabootu sëriñ bi yëpp gis nañ fi Serigne Sidim Cheikh Abdoul Qadir Serigne Habibullah moom Cheikh Ahmadoul Fadil ak njabootug Cheikh Abdoulaye Lahat ak mboolem njabootug yoonu murit kenn desul kon ñu ñaan suñu borom nangu liggéey bi nu di ko def nag tey bii nga ne mooy benn ba benn farub safar nga xam ne ci la safarul xayr wal baraka ci la Serigne bi tukkee woon tukkee mu tedd bu sell boobe waaye indi Serigne bu màgg boobee sababu xaybati an allaha arada an anaala minhu jaaha wa an akuna xaadiman fi dawmi wa an li xaw mi chaafian li <laughs> kon loolee yaa ku xam na ne sunu borom defal nañu ko kon bis bi bis buy mandarga lu baree baree bari la Cheikh Mamadul Muntaxa nag diggam ak Cheikh Abdoulaye Lahat ku am ak ku mas a am ak moom jataay ci wér rek am nga ca loo xam loo xam ne rek lu doy na sëkk mm-hmm. kon loolu moo tax bis bi dafa bari ci moom lu muy tekki bu wax ne kon nañ ñëw indi nuyoo boobu yi indi cant goog yi indi ñaan goog yi waaye xam ne nag liggéey bi ab liggéeyam ndax liggéeyub Cheikhul Xadima moo toogee tegooyub Cheikhul Xadima waaye liggéeyam njabootu Cheikh Abdoul Ahad la te ku ne xam ne liggéeyam ak Cheikh Abdoul Ahad ba ci ju mag ji bi mu koy tàmbali ku ne dégg na wax ji wuree jëm waxoon may damay ta àggaleel Cheikh Abdoul Ahad liggéeyam bi kon sëriñ bi mi ngi sant mi ngi gërëm tey ñaan bu baax a baax mu àgg ci jàmm ak salaam te bokk ci liggéey yi sëriñ bi nangul boppam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi mboolem kilifa yi fi teew ci njiital Cheikh Ahmadou Moustapha ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci turu Sëñ Hamsatu mu wax nañ ko jottali kaddu yi te jiital ci kaddu yoo xam ne kaddu cant rek lay doon mu ko yóbbante Sëñ Ahmadu mi nga xam ne moom la seen kilifa di Cheikh Ahmadou Mountakha yebal di ko xamal ne lii ñu def fii moom lañu koy defal ndax fépp foo xamante ne bii rek ña ngi fa yëkkati raayab lislaam moom lañ koy yëkkati rawatina nag bëri ci ëttub Sëriñ Tuubaa loolu moo tax bi nga xam ne sëñ Cheikh ñëw na wax ko ko Cheikhul Khadim bañ dëppoo ca da ko nekkat bala ñoo sëq benn jéego da ngeen dem ba sëriñ bi ñu waxtaan ci ak moom ndigal lu ci joxe ñu jëfe loola mu dem ba ci mun Muntaxaa wax ko ko sëñ Muntaxaa joxe ci ndigal def ci ñaan waaye yëmut ca loola daa yëkkati ab lim teg ko ci loxoom ne ko bu ngeen demee na ngeen ma ko ca defal loolee moom da ko gànt woon ndax li sëñ Galas mi wax léegi day mel ne laajuñ ci kenn dara rawatina loo xam ne day jóge ci moom waaye sëñ bi moo xam ne fépp fu ñuy defal rek Serigne Touba moom la ñuy defal te moo ci war a jiitu mu jàpp ko ab barkeelu jàpp ko ak ñaan ngir lii barkeel te ak ci jàmm ni ko si Ahmadou ñaane léegi kon si Ahmadou boo demee na ko xamal ne ko moom mi ngi koy sant di ko gërëm cant kooku di ko ci tur sëñ Moustapha mi taxaw ak mi yi taxaw ak turu Serigne Siidi ak turu mboole njabootu Sëñ Abdou Lahad mu xam ne diggam ak Sëñ Abdou Lahad na mu rafete woon na mu topp woon ci ginnaawam na ko Sëñ Abdou Lahad euh, woon ak bët ba mu ko doon xoolee kóllëre googee matal na ko ba mat sëkk dara manqué wu ci amul lenn loo xam ne dana xew ci kër Sëñ Sëñ Muntaxa di ko des ginnaaw du ci mm. nekk rek mooy jiitu ci kanam ñoom ngi topp moom téye leen ni nga xamante ne bi noonu leen war a téye téye leen raw na na ko Sëñ Abdou woon kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla mu teq aw fanam di ko ñaanal yàlla liggéey bi nga xam ne mi ngi ko liggéey Serigne Touba lépp àgg ba sont ci ay loxo na nga xam ne ko bëgg te lépp dëppoo ak ngërëmul Serigne bi di mu ci sàkku lépp mu am ko ci. loolu sëriñ bi mi ngi sant itam kii di Serigne Sidi Abdou Lahad moom itam mi nga xam ne yëg na liggéey bi da ko ne boo demee na fa teew teewal ma Serigne Moustapha mi ñëw mu yokk wàcc waaye yëmut loola da ko ne lépp lu mel nii lu mën doon lu nanga def ba noppi soog maa yëgal ak baax rek foofu na mën a yem kóolute mën a yem moo tax moom itam mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm di ko xamal ne day na nga taxawaay si Abdou Lahad taxawoon ci njaboot gi ci yoonu murit ci lislaam ak ci réew mi yëpp jaboote ñëpp tiim ñëpp sut ñëpp yor ñëpp taxawaay boobee moom la am si ñoom loolu mi ngi koy seeral mboole mbokk fi teew yëpp mu di sëriñ Sidi mi taxaw mu di sëriñ Abib taxaw ak mboole mbokk fi teew yëpp kon mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm geneen cant gi mi ngi ko jëmale gi sëñ Cheikh Khadim ndax dañoo bokk sëñ Abdou Lahad bu bokat kàbbu gay waaye mu def ko kilifa jël daal lépp teg ko ci loxoom te loolu ak baaxam rek la kon sëñ Cheikh sëñ sëñ Amsa nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di la lii nga def nii tim mooy li nga xam ne mooy li la war ndax sa wajur wa lii la fi nekk woon bi muy bi fi nekk fu mu mës a dégg ci réew mi tabax na ko àggal na ko dërëm dem na ci ba ci jumaay sëñ Tuubaa ji ndax wuutu Cheikh Moul Moustapha wuutu sëriñ Fallilou ñëw fekk ñu maa ngi sont nga fexe ba liggéey ci dara loolu yombut te soxna may nett na nee na bi nga xamee ne mi ngi ci liggéey jumaa ji woote ba xaalis bi mat neen da ko woon ndax liggéey ba ca tàmbali ma ñoom ñaar ñoo ko seqoon nee na am lu ko wax ne ko ne maa ngi lay sant di la gërëm di la xamal ne lii may def jumaa ji de xam naa ne mooy bëgg-bëggu sëriñ Tuubaa ndax tamul naa fi lu nekk waaye bi ma wootee jumaa ji ci laa soog am milliard kon Sëñ Tuubaa li la bëgg lii Cheikh Abdou Lahad moo ko wax kon nag ku sa bàyyi def loolu ci jumaa nag lu toll noonu yi kon foog naa boo defee lii ci yoon nga ci ci yoon wa rek nga nga aw mhm. waaye nekk loo xam ne luy bett kenn la wala loo xam ne kéemaan lay doon kon nañ lay ñaanal rek nga ko jàmm ndax Cheikh Abdou Lahad la fi nekk woon njaboot gi ñu ñëpp lii lañ fi nekk nekk ci loo xam ne mooy la seen maam bëggoon ak la seen wajur wa daan def kon mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di sant mboolem mbokk yëpp di sant mboolem di sant mboolem taalib yëpp di xamal li li li sëñ Fall wax rek li ci war dem lépp moom day mel ni fàgg ñu ko waaye nag lu baax fépp fu ko waaye seen itam na nga daw yóbbante ca ndax fii ndax fii dañ fay jaar rek di jàll kon képp ku ci def itam na nga def te xam ne lépp loo ci def doo te kon te lii moom mooy li sëñ Tuubaa bëgg di si Ahmadu wax léegi lii li nga xam ne mooy ay mooy ay daari alxuraan ci dëkk bi ëpp na ñaari junni li nga xam ne moo fi ay jàkk ëpp na ay junni di dem kon nag lii dañ daa ñëw rek dolli ko ca loola ci nga lagam li sëñ bi ñaanoon ci dëkk bi mu doon dëkk bu xam-xam dund ku leer dund ku bu ñu bu ñàkk dund ko boo xam ne dañu fi jaamu yàlla mm. kon lii foofu rek kon Sëñ Tuubaa lii la bëggoon li des lépp kat tegandaay la mm. wala luñ ci bëgg yokk te bokku ci waaye lii moom mooy cosaan moo mooy jëf mm. képp ku ci def rek na nga ñëw def ci ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dikiina kullihim bi xayrina أنك الخالق والكريم إليك لا بلا سواك نرغب وفي هداك لا سواه نرغب لسنا ووسنا بك منا إله ونار حرب فكنا كل نسب العزلان بحسنك الحسين يا وكيل فكن لنا عند خفيف وسقيم هنا هل السلام والسلام في هذه الدار وتلك الدار

الواحد القهار المانع العزيز والجبار لك الخلائق معا والأمر ومنك يأتيه المنى والنصر لين لنا كل مريد ومريد وسخر لي كل باق asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ginnaaw boo xamante ni ñëw nañ fii ci Daaru Naim ci kër sëriñ Serigne naa Mbacké moom sëriñ Abdoul Ahad amal li nga xamante ni mooy teg xeer wu jëkk ci jumaa ji nga xam ne moom lay liggéeyal sunu borom subhaanahu wa di ko amal fii ci Janatu Naim ginnaaw boo xamante ni lu bare bare ci kilifa yi ak lu bare bare ci bokk yi ñoom ñëpp àndandoo nañ ñëw fii fekk fi ki nga xam ne mooy sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad waaye fekk fi mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp comme ni ngeen ko gisee ci image bi ginnaaw boo xamante ni egsi ci tegu xeer wi mbokk yëpp àndandoo ñëw teg li nga xam ne mooy xeer bi sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad teg ko waaye mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo fi ñëwoon àndandoo ci tegu xeer bu am solo woowu sëriñ Ahmadou Badiou moom it indi li nga xam ne mooy kaddu sëriñ Mountakha macha allah sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Lahad jiite woon lépp lu jëm ci wàll googu sëriñ Hamsatou Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad mi nga xam ne mbokk yi wax naa ni ca woote ba ba léegi moom moo woote woon liggéey bu tedd bu am solo bi nga xam ne sëriñ Cheikh Amadou Bamba moom sëriñ naa Mbacke moom sëriñ Abdoul Ahad doon na ko def kon ñu déglu kàddu yi nga xam ni mooy bàyyi ko ci moom jëm ci mbooloo mi nga xam ni woo na leen ñoom ñëpp nu wuy si ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk julli yëpp di nuyu bokk murid yi rawat nag ñu ñu bokkal Serigne Touba ak taalibi yaakaar Serigne Touba ci bis bu rëy bi nga xam ne sunu rakk sunu xarit daf ko taxawal muy tabax juma te yëkkati lépp teg ko ci sama loxo loolu nga da ko def ngir baaxam rek waaye mën na koo taxawul boppam waaye nag moom dama koy sant di ko gërëm ndax daf maa def kilifa te moom mooy sama sëriñ ndax bokk ndey bokk baay muy sama rak te noonu la yoon wi doxee ku la mujj ci barab xam fa loo xamut dama mujj sañu laat kon sama sëriñ la waaye nag bu ma defee kilifa ci mbaaxam rek la waaye nag maa ngi koy nangal bu baax a baax di ko ci sant bu baax a baax di ko ci këram bu baax a baax te di ko ci ñaan yàlla defal ko ci ndam lii mu def dara gënu ko wéy ndax tabax jumaa moom mooy ci islaam ak doon imaam mooy cër yi gën a kawe te ku tabaxal suñu borom lu toll ni am tàgg rek ci kaw suuf mu tabaxalan génn ci àdduna kon bu dee ndaw xaalis bi muy tabaxee jumaa ji mën na ko def ci boppam mm-hmm. barab bi mu koy def itam boo ko jaayal muy xaalis bu bari dëgg waaye def ko lépp da ko delloo ci yàlla mm-hmm. te nag ku lebal yàlla bu lay fay da koy ful mm-hmm. noonu la ko wax man yuqridullah xardan xasan fa yudaa'ifu mm-hmm. kon seexul xadim lebal nga suñu borom yàlla na la suñu borom fay te ful fay ka ni ko diglee te ànd ak mucc akuk yokk akuk jariñu tey ëllëg amiin sa barke sant bokki sëñ Tuubaa yëpp kër yëpp ñu ngi ko yëgal ñëpp ñëw na ku mën a ñëw rek ñëw nga ku ñëwul itam yaakaar naa ne taw bi ak yoon wu ñàkk wee jub moo la gàllankoor mu mënoo agsi ndax bari nañu bëggoon a agsi te mu ñu agsi dama mujj ni jéggal naa leen mhm. ba ci sëñ sama son yi mi nga xam ne këram laa defoon communiqué maa ngi ko sant di gërëm taxawaay bi nga taxaw yëpp moom itam bëggoon naa ñëw lool mhm. soññ na ma ay yoon yoon li ci gët ëpp solo mhm. lu ñuy lëggéeyal sëñ Tuubaa maam na ñëw ca. Mm-hmm. borom daru mm-hmm. sëñ Basiiru xalifa maam na moo yebal doomam ji mm-hmm. sëñ Koso ak sëñ Cheikh man ni sëñ Cheikh naa sëñ sëñ Cheikh naa ak sëñ Basiiru ma sëñ Dan sëñ Dan xam naa ko depuis Italie sama xarit <laughs> Abdou Aziz ah kii am sëñ Dan laa wax Abdou Aziz. Ah, sëñ Moodu ah Kara waaw Kara maa ngi jégalu ak bon dégg nga sëñ Basiiru moo fi yebal sëñ Moodu Kara loolu defal sëriñ Tuubaa nag jaaroo ko ci maam Thierno moom jàppal loolu nangu ndax dafa jëkk ñëpp ci sëñ Tuubaa mujj ñëpp ci sëñ Tuubaa dafa muy dem sëñ Tuubaa kilifa xamul woon li kilifa jaaj da rek ngir sëñ ndax moo ko jàngal mooy magam bàyyam jébbal ko loo tax mu def ko kilifaam sëñ bi nag noonu la def rek kon rafet naa ci jëfi njort bu baax a baax sant sëñ njaboot sëñ Abdou gépp ñëpp a fi ku mënta teew itam sa ndaw teew na fi sëñ si di ci suba ko téléphone ndax dem naa këram ñaar yoon ma ko ma boo ko téléphone mu am sa jël nga may tàggu ci laa ko looy def defal ma noppi jox naa la ci ndigal sëñ Muntaxa itam mhm. lii ci guddi la ma woo ci guddi rek mhm. ne ma danaa yebal sëñ Ahmad Badiou mhm. yëkkati ab som tegca ne ma nag la ma ko waxoon sax moo tax yëkkatiwul xaalis bari joxe ndax dama ne kon sëñ Cheikh li ci dem yëpp jekko na ko layul kenn dara dëgg man mi bëggoon naa ko jox semence sax waaye dafa gàntal mu yëkkati 3 millions jox ma ne ma daam li ma leen ci fasa al imaanu wal islaam wal ihsaan te ñett yooyu rek mooy li solo kon sëñ bi sëñ Muntaxa fas ci yëf yi mooy al imaanu wal islaam wal ihsaan nee na ci fas loolu nag mooy diine mooy murit mooy taalibe waaw ndax al ihsaanu mooy tasawuf te moo di taalibe ci taalibe nag yaakaar naa ci nga juddu ci nga yaru ci nga màgg dëgg la ndax mas naa ko wax sa baay mu ne am satu yaa ngi jàng ka ma ne ko waaw mu ne ah, mooy sa doona de ma ne ko ñaan mu di taalibe mu ne ma moo meñoon kon yow noo bokk lu ñu mel ñoo bokk ndey ñoo bokk waaye kon noo bokk lu ñu meññ mm-hmm. bokk yi fii teew nag sama sama kàddu lot na ci sant leen lot na ci gërëm leen mm-hmm. ndax lii defaree fi man mm-hmm. ñu bokk man ba noppi wut nag ñi ñëwut ñëpp ku ñëw itam amoon nga yéene amoon nga pas-pas bu ñëw waaye lii la yàlla dogal ndax taw biig bi ak yoon wu naqar wi ak dajeek Euh, liggéey bi bàyyi faal fii bi may ñëw ak sama kër daanaka def naa fi ñaari waxtu waaye nag lépp solo mooy lii minorité daa am daa am solo ci islam mooy mooy qualité qualité bokkut ak quantité quantité mooy mbooloo ma jën dafa am jenn jit ñoo xam day wutu junni nit day wutu fukk junni nit te ñooñu bari nañ tey ba noppi yoon porté dara ci Sëñ kon nag lool rek doy na sëkk qualité sati siñu daal yaa ngi teew doomam yi teew nañ waa kër sëñ Fallou teew na daanaka wax tur lu may woote ne njabootu sëñ Fallou ak sëñ Abdou Khadre ñoo ci jiitu loolu feeñ na ci dëggal samay wax kon sëñ Assis maa ngi sàkku ci yow mi nga xam ne yaa fi ceerno tey nga ñaanal ma sama rakk jeex yàlla guddal fanam may ko wér dolli ko sutura dolli ko tiraanga dolli koy xéwali àdduna ak àllaaxira te lëkkale tiraanga yi ak àllaaxira loolu moom maa ngi la koy sas di la ko ñaan ci barke maam Thierno yàlla na ko yàlla defal allahuma te defal alhamdulilah waaw alhamdulilah di ñaan itam taalib yi fi teew yépp mhm. ñu dugg ci biir ñaan googu waaw moo xam mag la moo xam ndox la moo xam la moo xam góor la moo xam jigéen mhm. sama xol sedd na mhm. bëgguma ci woon yëkkati benn kàddu ndax la sëñ Ahmad ba di wax mat na la Cheikh Abdou Bani wat wax na waaye nag sëñ Cheikh mi mënuma koo ñàkk sant mënuma koo ñàkk gërëm mënuma koo xamul noo ko def nag nam la def rek a tax. koo xam noo ko def moo xam nam lay def. teral na ma. ormal na ma. sigil na ma sagal na ma. te ñoo bokk bàyyi gënu ma ko ndey. kon lim def ak mbaaxam rek a tax mu def ak ak mbaaxam a tax sa barke bàyyi sa barke moom daal. nga àgg rek te muccum ndap akum ndog. ci barke Cheikh Abdoulaye asalaamaaleykum.